128 millions la yéen kaay gi ne ci ñaari at yi li nga xam ne jàpp nañ ko ci ay faux médicament ci Sénégal bi ñu ko xaymaa ci ay koppar toll na si ñett ci ay milliards yéen kaay gi dale ko di jaay nee lu jëm ci wàllum médicament ci Sénégal gis nañ ne saa sunu xëyee mbir mi di gën a wulee ñaay di gën di bëri ci réew mi te saafara ko nag jafe na lool ndax fan yii nga xam ne moom la ñu ci paduwa jàppoon nañu fi ay faux ay balu fetal yéene kaay gi ne dàqante bu metti moo amoon diggante douane ak samba boo yooyu nga xam ne ñoo yoroon faux médicament yi ak drogue ba yéene kaay gi di réew mi ko di jeex yóbbu ñu diiwaanu Linguère ci hôpital bi nga xam ne maanaam pédiatrie ba moo tàkkoon balu toll si ñeent ci ay liir ñàkk ci seen bakkan mbaalo ja ci am yëkkati na ci ay kàddu andi ci ay leeral def ci ay révélation wax lan moo tax opital boobee daal di tàkk yéene kaay di libération nee na hôpitalu Linguère nga xamante ni moo tàkk enquête ba jamono ji nag joxar bi na baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñooy personnel de si boppam mbir ma ba muy xew fekku leen fa yéen a kaay gi nee na jamono ji li nga xamante ni moo ci amaguna ay sanction administrative te nag danañu leen topp ci lu jëm ci wàllum yoon yéen a kaay gi di source a nee na négligence médicale moo am ci hôpital bu Linguère ba ñi nga xamante ni maanaam seen i liir ñoo sa ñàkk seen bakkan jamono ji mer nañ ba maara day taal yi yéen a kaay gi de la témoin nee na ñeenti liir ñoo si ñàkkoon seen bakkan am na ñeneen ñaari liir yoo xam ne ñàkkaar nañu si seen bakkan jamono ji nag lim bi maanaam juróom benn la ndax 4 plus 2 égale 6 yéen a kaay gi la sa na bu Ziguinchor ñi nga xam ne liggéey liggéeykat ya jamono ji dañoo mer ba maara de taali moo tax daal nañuy sumb lu toll si ñetti fan yi grève yéene kaay gi di Walf Fadjri ñu xëy fekk fa maître Abdoulaye Tall bokk ci Pastef nee na jamono ji maanaam leer na nañ ci bopp askanu Sénégal gi yëpp ne lu jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi Macky Sall daf cee la ji te jamono ji nag ci làmbatu ci la Macky Sall nekk ndax emploi du loo xamante ni dañu koy décréter comme rek jekk-jekk taxaw na décréter na ay fête maanaam noonee kenn mënu koo doxalee ak lu jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi moom maître Abdoulaye Tall nee Macky Sall jamono ji maanaam dafay xuppaate ak dina paate waaye nag ñun amul kenn koo xam ne maanaam mën nañoo napp wala mu mën ñoo xuppoo jamono ji nag am na ay adversaire Ousmane Sonko yoo xam ne ñoo ngi manipuler nguur gi ngir nag mu daal ci njiitul Pastef waaye nag ñun ñoo ngi leen di xaar yéen a kaay gi xëy na wax ci gendarmerie ak matukaay yi nga xam ne jamono ji jël na ko ak nomination yi nga xam ne am na ci lu kenn yëgul ci biir gendarmerie ak lu toll si ñeenti junni gendarme yi nga xam ne gendarmerie dajale woon na ko ci manifestation yi loole yéen a kaay gi xëy na ci ñëw yéen a kaay ci askan wi maanaam bu mu bett kenn yéen a kaay gi de réew mi Quotidien nee na ginnaaw kàddu yi nga xam ne Macky Sall ko ci conseil présidentiel bi maanaam di dànkaafu ak yeneen kàddu yi nga xam ne moom la ñu ko loole nag dafay firndeel ne jamono ji maanaam jàppante waat ma ngi xeeñ yéen a kaay gi de La Tribune nee na ñi nga xam ne ñooy activistes yi ji nag takku nañ ba dëgër maanaam defante ak Macky Sall affrontement résultat moo dox diggante Macky Sall ak askan wi askan wi ñoo dem ba amutuñu yaakaar ci Macky Sall maanaam gëmatuñu Macky Sall ndax bëri na ay digge ay promesse yoo xam ne njiitu réew mi def na ko ci réewum Sénégal te France dali xëdër lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature amul lenn loo xam ne maanaam daan na say leer te Macky Sall jamono ci ay transhumants ñoo ko wër ñi nga xam ne ñooy ay militants première heure ñooñu ñëpp tàqalikoo nañ ak Macky Sall yéen kaay gi de la soloye nee na lu jëm ci lu toll ci quatre cent trente milliards

jàngalekat dinañu leen recruter jaarale ko nag ci voie de concours yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na njàng meeg njàngale mi ca université bu Thiès jamono ji dafa gàllankoor ndax fan yi ñu génn jàppo nañu fa étudiant ni dem démb tamit am na yeneen étudiant yoo xam ne teg nañu leen loxo ci université bu Thiès yéenekaay gi de la témoin nee na ñi nga xam ne ñoo nekk ci fonction publique ci lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram ke te ñu leen di affecté ci àll bi ñuy lànk yan daan moo leen ci mën a fekk ma ngi ci journal bi yéenekaay gi di Source A xëy na wax ci soxna Aïda Diallo mi nga xam ne benn ci ay jëwri na ma maanaam moo sàcc ay millions yu bare bare moo tax jamono ji jëwriñ joojee nga xam ne moo sàcc millions yi jamono ji ma nga ca kaso ba yéene kaay gi di laas ak réew mi quotidien waa Omart ak waa say wi jamono ji ñoom ñoo ngi sàkk ñu dàq ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum culture ndax nee nañu Ablaye Diop mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum culture maanaam dafay nekk di layaam layaamal ak di lambar lambar yi ndax kër gii di sodaaf dañu ko yàq-yàqe tëmul yenn matukaay yoo xam ne daana ko say jël yéene kaay gii di Dakar xibaar naan ñu benn fan ci weeru mai wi nga xam ne moom la ñu dégmal dina am ndim ndimbal yu bare bare jëm ci wàllum dund maanaam jóge nag ca émirats arabes unis nag ñëw ci réewum Sénégal ndax waa émirats arabes unis yàgg nañu dimbale Sénégal ci lu jëm ci wàllum dund yéene kaay gi de l'Observateur ñu fekk fa Ali Fari Ndiaye di ab géopolitologue nee na G5 Sahel jamono ji soxla nañ ay force militaire yu Sénégal ngir nag mën a indi ak jekkal ak jubbanti ci liggéey bi nga xam ne Idriss Déby commencé woon na ko yéene kaay gi de sat xëy wax